أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي خم ني فان يي bi bala bi wàccee ci jur gi am rek ci bayitu waxi allahu khairuman shafa wa man hada wa kashafa wa minhu min kulida muqaddari bayit woowu la mu mikail ngir bu fekkente ni Lak bi ñu lak a jur gi ngir bi ñu désinfecté indi tawat fièvre ci réew mi bi ñu tuddee épidémie wala yu démé non Mikaayil bu ko neexoon bu joxé ndigal ay turubam ñu wacc ndox ci seen kaw bu leen shifa bobu safara si mana jaaré ci ndox ma ba nga xamné du jur ben tawat bo xamanteni bi buy dal nit la ci réew mi motax ñu jël bayit bobu allahu khairu man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu ja'ani shifa min kulli da muqaddari di ñaan bayit wi pour mu ñaanal ñu mikael ngir mu defal ñu lolu bayit wi lañ koy ñaan ndax bayit wi mom ñaan gu ko tedd ki ñaan la ba mu nangu bayit wi itam nak mom da fay am lu mu man waaw ci malaika yi rawante nak mikael mi nga xamni mo yilif ñi yere ndox mi lolu lañ ne won dinañ ko wax ci ndey jor wetu ndey jor gi wetu càmmoñ gi ci wàllu réew mi ak politique bi ak ñi nga xamante ne bii ñu ngi waajal ngir seen manifestation fukki fan yeeg ñett ci ajjuma ji ñuy waxaat ak waa ngóor gi ni leen ndeem yoona leen ko may ngir ñuy manifesté wu bu ñu leen tere ndax bu ñu leen teree ba noppi ñoom it teewul ñu manifesté wu ñoom it ndax li leen ko yoon may kon ku nekk tooñ nga comme ñoom ñaar ñëpp ku nekk tooñ nga kële tooñ na constitution kii tooñ na pouvoir bu ko defee yooyu yëpp lu mat a setantal la waaw xëccoo bi ak bii bi am na neneen nu ko mën a faj te am na noo xam ne buñ dee setantal ànd ak patience bu dem ba longanimité tey setantal rek waaw tey bañ a passionné rek waaw tey bañ a parparloo rek wala yu demee noonu waaw buñ dee setantal rek te jéem jéem lu mu jafe-jafe ndax jamono ndax li ñu tubaab yi xëpp ak lii ñu nu diw lu mu jafe-jafe jafe-jafe bu nu góor góorgóorloo ci li nu yàlla sant ci aw àndeen rek réew mi moom du mel ni yeneen réew yi waaw yi bari problème moo tax nag nañu leen autoriser comme yoon leen ko may waaw waaye ñoom it bu ñu leen autorisé wul itam jarul ñuy insisté ndax dañoo war a bàyyi xel seeni njaboot seeni soxna seeni doom seeni famille waaw bu ñu leen dee sànni ay gaz lacrymogène ñu leen di filmer seenu njaboot di ko gis ci télé yi ñenn ñi nga xamante ni bii ñoom du ñu am maîtrise muñu bañ a daw nga xam ne ñoom dañuy daw di wut fu ñu dugg hmm. waa ak ñi nga xam ne dañ leen di jàpp di leen yóbbu ci kaso bi seeni njaboot di ko gis ci lu ko jarul loolu daal wax dëgg yàlla ma sañoon ngeen bàyyi xel ci bu baax a baax

ñoom bu ñu leen bu ñu insister ñoom it insister ba dara xew ci ñoom it tooñ nañu kon yooyu yëpp dafa mat a seetantal tooñante bi daal nañu dellu rek ci li njàngaleem ku tedd ki rek bi laa tanaasuhin wala taxasudi rek wala taxasumin wala tadaburi wala tabaxudin wala tanafuri te loolu lañ woon lañ leen di jàllale asalaamaaleykum wa rahmatullahi